Papa Thione li ma la defal ni du dara li maa la defal ni du dara mais suñu borom mooy tërale dof suñu borom mooy sagal dof suñu borom mooy dof lu mu dof dof bu dee doom safara dof fa ci yàlla dalaa xelam yóbbu na ko dof bu deewee àjjana fi ndaw si lay jëm direct parce que suñu borom boo ko may loolu Papa Thione li ma la defal nii je suis mérite tanga ko mérito dangaa yàgg ci aar bi fay ma fexe ba ma taalal la dégg naa sa sa portable léegi amatul temps 24 heures sur 24 yaa sonn 24 heures sur 24 yaa sonn Papa Thione sant ma sant suñu borom ne xam ne borom bi moo la daalaat ku ñàkk aw na Papa Thione ay Papa Thione koy waxi dof Papa Thione ku koy waxi dof waxi dof man gis naa ci sama bopp gis naa ci gis naa ci sama njëriñ baax a baax war Papa Thione war maa xewee jour bu ma xewee àdduna du neex parce que réew mi maa ko téye amee carakaan di ma carakaan carakaan di ma carakaan eh carakaan baal ma ni ma carakaan eh. góor gi si jee abata tiriririr góor gi si gee abada tarararaw maasul buuna abada tiriririréw carakaani ma jaarakaa elage carakaani ma jaarakaa borom moppale caraka elage ni ma caare kosoon veuillez attendez kosoon kosoon veuillez Tayrou Sarr kosoon Tayrou veuillez borom Yoff Kosso veuillez Tahirou Kosso Kosso veuillez Kosso Mansour Bouna veuillez El Hadj borom Mbale Kosso waay veuillez ay ku ñàkkoon am na yàlla bu ma xewee ay ku jël intention xewee wala nga jël intention yàlla nga génn àddina xew moo neex waaw boo doxee waxi da lay da nga waxi nit da lay nga moche da ñaaw da bëgg nga mignon da lay ñaaw kon nag il est galant te par il parce que dama jeune parce que dama humble parce que on m'attend je suis baisé wala je tout temps dama baisé on m'attend ñëpp ñu naan Pawlish arrête de faire connerie arrête